dikkati naa gannaaw gëm sa bopp ak yeewi askan wi day tribune yéene kaay ne ma Abdoulaye Wade ak ñamu àndal ña ngay jox président Macky Sall nag seen wàll ci xew mi yéene kaay bi ne ma élection législative yi parrainage yi la waa wàllu ne bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg gaayu Abdoulaye Wade yi ne bu Macky Sall moytuwul day langu politique gi dina yëngal bu baax réewum Sénégal bu njëkk waa wàllu ne parrainage bi la ñu bëgg Macky Sall ne ko tegge teg fële ndax duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg àndut ak démocratie tey day ñaareel moom moo di fichier électoral central bi àgg ci ba mën a gis lépp saytu ko jafe-jafe la ci réew mi te loolee nag bu ñu ko deful càcc mën naa am ci élection yi nay leer ñu saytu ñoom waa wallu ne fraude ak manipulation yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci fichier bële vidéo wuñ ko ci fichier bii beneen bi ñooñu wàdd ne délai bi ñu jox gaa yi ngir ñu bindu ci liste électorale bi dafa gàttu lool tax na ba ñu bëri duñu mën a bindu gaa yi ne la bëgg lenn la moom moo di gisee président Macky Sall ngir wàcce tension bi de bu ñu ko deful làmbaay dina ñaaw bu ñuy gis président Macky ci intermédiaire Sud di may xamal législative yeeg te ginam day andeeti na coow ci réew mi parrainage bi nag mooy jafe-jafe gu mag yi Momar Jong nay buñ ci waxul day laataa élection yi ay jafe-jafe mën naa judd ci réew mi coalition yeewi wax nañ ko gëm sa bopp wax na ko tey nag wallu Sénégal mi ngi wax kon nag la leen war moom moo di xoolaat bu baax a baax nañuy defe ak bi bi Momar Jong ne te buñ ci waxul du yem nag ci élection législative yi de mën na dem ba élection présidentielle yi l'info yéen kaay daal di ñëwaat xamal ma ne parrainage bi loo ci mën ci dégg président Macky Sall du ko bàyyi ndax parrainage bi moo koy sowe Macky la mu gën a tiit jamono ji ci Benno Bokk Yaakaar yaakaar moom moo di list parallèle yi ndax Macky xool na ba xool xam na ni li ko gaañ ci élection locale yi liste parallèle yi bokk na ci moo tax bugg koo gis ci élection législative yi yéenekaay bi ne ko liñ tegu gët man ko laal moom moo di Macky saa bu leen tere waa coalition dañuy lank def la leen neex waaye nag attention bii bu ñu laajee parrainage ak xaatim yoo xam ne dana bari lool parrainage ba nag moo yombal Macky Sall liggéey ba ndax nag dina bari ñoo xam ne dañoo am liste parallèle boo amul base bu dëgër mënoo matal signature yi kan moo fi am loolu ci coalition bu Macky Sall bii critique yéenekaay sam Khalifa Ababakar Sall Mom ndax mën na bokku ci élection législative yi ndax nag buñ sukkandikoo ci article 29 bu code électoral bi mom xaf day dañu ko génnee boba le vrai journal di ma xamal né lo ci mën ci déggit opposition bi day fi ñi ngi défanté ak président Macky Sall waye l'opposition bi ci bopam dañoo njortu né ci seenu biir amna ño xamné xam jubuñu en tout cas yene kay bi xamal ma ne loo ci mënti déggit mën ko wax ñom opposition bi ci boppam ñoo wóoluntewul ci seenu biir ndax njortu nañ ni amna ño xamné ci di xex te bu guddé ñu wax la opposition ba tek lépp plan président Macky Sall ñàkk wóolunte googee yéene kaay bi ne ma mooy wàññi seenu doole de yokk nag dooleel président ndax dañuy xaajaloo te bu ñu xaajaloo Macky Sall ànd ki gaayam xàcceendoo dóorandoo yat wa dal seen kaw président Macky Sall mbaadu yatam ba dafa dal maawa Diouf l'évidence yéene kaay sampub laaj lan moo waral nag ñu génne ko ci communication bu bennoo bokk yaakaar bi mbaadu dafa tële le quotidien le quotidien ne mimi day moom ma ngay aju rek moom mimi koo jox gëdd yoo xam ne ma Macky daal Pikine gëdd goo xam ni it mar day taali ab plan la war a taxawal ci Pikine googee ngir suqali ko le mandat samp na laaj de mbaadu Ousmane Sonko mooy Abdoulaye bi fi woon l'info yéene kaay en tout cas docteur Babacar Diop nee na day fi ne Macky Sall day Ousmane Sonko ko tiital vox populi ne ma yoonu Sénégal day bu doonu guy gaa yi gësam nañ ko ba lépp wadd ci suuf ma nga yëngu de daal dina nag dugalaat seen loxo ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko tribune yéen kaay ne ma ba tey député bii di ak Sall day ñaari fan ci weeru mars ca lañ leen war a nag atee génne nañu leen ca rëbës ni ki démb critique yéen kaay ne ma waaye terewul de daqaat nañ leen dàq seen liberté bi dañuy xaar seenuk atee vox populi ne ma juróom-ñett ci nappkat day daal dinañuy réer ñaari fan ci weeru mars ak tey te ngéej gañu bàyyee koo njàqar la seen njaboot nekkee l'observateur ne ma fii ci Sénégal day lu ñu liggéey liggéey jafe-jafe yi di ñu dab rek coowal gaz su lekkooti na ci réew mi dil wu yees woo xam ne lu toll ci juróom-ñetti téeméer juróom-ñeent ñeent fukk ak juróom benn milliard la daal di soxal ci nag teenu gaz yu yees yi nga xam ne ñu ngi koy exploité booba vox populi ma ngi may xamal ne tension de moo am ci marché bu gaz bi ba tax sax mu sampum laaj ndax nag saar dafa am arrêt technique wala it perturbation moom moo am te nañuy séddalee gaz bi booba la témoin ne ma ña nga war a atte de ña nga xam ne ñoom la ñu tuumaa loon ca faat ga amoon ca ba fa bayoon waaye laaj wa samp mooy mbaat dañoo bëgg am ab bàyyib nëgandiku yéeni kaay bi ne ma l'armée bi day ma nga ca wóorum Salif xeex wa daal en tout cas tar na lool ca Nord quotidien le quotidien ne ko Salif kay dafa ñàkk sax noor sinja armée bi nag moom moo jël base Salif Sadio yëpp foofu moom la armée bi ci wurum Salif Sadio boobee Sud Quotidien mag may xamal ne ñàkk na ci benn soldat Le Soleil yéene kaay ma la ñuy négocier de mooy diggante Mali ak Sénégal waaye tam ubbi teeg yi dialogue ba day daal dinay tàmbali diggante Mali ak CEDEAO L'Observateur ne bul daaneel te ñëwoo ci man ma xamal la ci ji jidda caaroy kaw lañ fa taxawal ab centre la boo xam ne école des mari lañ ko duppee centre ba daal góor ñi ci boppam la ñu fay jàngal nu ñu yoree soxna topp

kenn xamul lan la calcaire bu bari moom moo ci nekk nga naan ko sax yow pour sa wér-gu-yaram dara baaxu ci hmm. Dakar ñaata forage lañ fi gas am na temps yoo xam ne ñu ngi doon gas dëkk bi yëpp ñu gas ko ñu ne dañuy def ay forage bu bu paree dëkk bi dina am ndox te tey la gën a metti hmm. nga dem ci dëkki kaw gi ci forage lañu fay jooy hmm. ñoom ak xam ne ñoom ñooy gérer li nga xam ne moom mooy forage yi nañ ko waxte dee gis nga bu ñu bëggoon gérer ndox mi dañu koy gérer mais nag bukki bi yebee waxambaane sa doxin wala jël nañ sunu ndox mi jox ko nasaraan waa Sénégal gis ngeen ni ñuy doxalee kenn mënu si dara teg nañ leen fi ñuy def lu leen neex donc ñun duñ mënuñu lu lu dul sibiir mais subir ba kañ ba fan. nañ waxante dëgg bu ñu bëggoon gérer ndox mi ni ko bëggoon gérer wóor na yàlla dinañ ko gérer mais xëj na moo leen saful dafa nekkul seen i euh, comme euh, l'autre ni muy waxee dañuy euh, xamul lan mooy priorité ak lu dul priorité ndox mi bu ñu ko bëggoon gérer gérer nañ ko bi ay KMS 3 lan lañ ci wax KMS 3 bu paree waaw ndox mi dina yomb fépp dina am accès ñoo ngi euh, euh, euh, forum neuvième forum mondial de l'eau mais nañ nañ dem loolu moo tax ma xaw a sax doxalinu Barthélémy Dias mhm. contre forum wan leen réellement jafe-jafe yi nga xam ne mhm. moom moo fi nekk fii ci mhm. Sénégal ci wàllu ndox rawatina capitalu Dakar nga ne capital bi la jafe-jafe ndox di fi am qualité ndox di fi problème mu qualité ndox di fi am nañu waxante dëgg loolu c'est pas sérieux ci réew mu mel ni Sénégal alors yaa si loolu moo may may ma nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaanaa ah, sama mbokki mool yi sama mbokki mool yax nappkat yi nga xam ne ñoo ngi réer biir géej nañ ñu jàppale ñooñu ñu seet leen gis leen euh, seen jàmbat bu njëkk moo di euh, contrat yi ñu ko signé licence de pêche nañ ko wax mhm. ñu xam ñii ñoo am droit napp suñuy waax moo gën ñuy bàyyi euh, anarchie bi nga xam ne moo am biir géej yenn nappkat yi ni ñu koy ñaawloo donc sama mbokki mool yi seen jàmbat baa ngi nokk nañu ko wax may nuyu bu baax madame Bathily bu madame Bathily bu Arona présidente ma lay nuyu bu baax yoon ni Thiam madame le maire yoon ni Thiam

Euh, jokkoox askan wi jokkoox ndaw yi waaye na jokkoox opposition bi loolu la waa wàllu Sénégal bëgg euh, jëm ci euh, parrainage bi su ko defee nag coow ngaa dakk ndax nee nañu fii ci Sénégal muy opposition bi ak ñenn société civile bi nangu ñu parrainage bi jëm ci li nga xam ne mooy faux affaire faux passeport diplomatique yi nga xam ne moo yëngaloon pencum ndawi réew ma treizième législature bi jàpp leen ne ñaari député yi di Biaye ak Sall seen procès bi démb lañ ko waroon ubbi waaye nag dañ ko renvoyé ba 7 avril Euh, lu nga xam ne ni yàggatul dara du ñàkk projet bi daañu ko ubbi Mamadou sa Mamadou Fofana mu ngi ci doon wax mu di euh, procès Adji Sarr Ousmane Sonko ndax nag euh, borom salon bi di Ndeye Khady moom mu de bu salon Sweet Beauty nee ñu nag daañ ko déglu daañ ko déglu ci lu yàggul dara kon nag bi sax la ñu wax El Hadj Yegsil <laughs> mardi la ñu wax <laughs> ah lañ ko war a déglu ci dossier bi waaw vraiment moom si lañ ko war a déglu ñu ñëw ci euh, Ousmane Sonko. Hmm? aja le député du peuple. la noir bi ci plateau. tout noir tout plateau. te ak zone bi tam. parce que moom it dugal na zone. kon maa génn contre temps. non yow génnoo contre temps parce que noir bi tam mi ngi ci biir. <laughs> mais amul zone. waaw <laughs> zone bi nga génne. aja <laughs> euh, le député du peuple ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu baax maam. Ousmane Sonko dina ziar ci yas yas. Oh, dina ziar ci àjjuma ji. affaire suite boobu maa ngi doon wax sànq euh, Sonko. Euh, dañu koy euh, euh, déglu ci fond dossier bi ci weeru avril yaa ngi koy wax sànq ah, parce que démb maa ngi déglu Abbas Fall suma juumul mooy premier adjoint au maire bu Dakar. Mhm. ñu invité ko ci benn rajo ci benn émission mu ngi xam ne kon ñoom ci boppam ñoom waa Pastef ñoo gën a bëgg ñu amal procès moom nee na. Mhm. nañu tëgg procès bi ndax procès bu ñu ko tëggee. Mhm. yuuxu dana jib fañ ko yaakaarewul woon. démb déglu naa émission bi yëpp Abbas mu nekk émission bu am solo nee na nañ ko tëgg. léegi ñoom nee nañ ko tëgg Adji Sarr nee nañ ko tëgg gësëm nañu yoon ba yoon fu mu nekk nii yëngatu na mu ngoog li ci kanam raw li dinañ xool yu fa mu fa mu jibee comme Abass Fall ni mu ko ni ko ni mu ko dànkaafoo alors borom salon bi kon dañu koy convoqué moom euh, mardi bi ñu dëgmal euh, te nag ñu ngay xam ne kon kii di Ousmane Sonko mënees nañu ko déglu ci fond dossier bi weeru euh, avril tête de liste Benno fii ci diwaanu Dakar ban profil la ñu jàpp ne kon moom la ñu say teg ñu bëri kon coow li bari na ci lu mu ci manti doon yéenekaay bi ñëw na si di Walf Quotidien walfu Quotidien gannaaw moom ñu dem ci Vox Populi Vox Populi sama mbokki nappkat yi xam ngeen ne jamono ji nag ah, ah, li leen dal metti na juróom-ñett ah, ci ay nappkat la ñu wax ne kon danoo réer 2 mars ba léegi loolee sa Tëngéej la xewee Tëngéej sa sama gox lu lu metti

dañu ko ci sempi ba mu set dina xew forum contre forum de l'eau noonu la ko tuddee tey sax ça naa ma si la koy door wax si clash bi am euh, bu Dakar Sénégal jëm ci forum euh, de euh, forum mondial de l'eau Ousmane Sonko doit être jugé et quel qu'en soit le prix loolee du samay kàddu la Diop moom moo ko quel que soit alpha de ko lolé da fay nak jox honneur ki nga xam ne moom mooy nguuru Sénégal dafay darajaal li nga xamné mom moy suñu walum euh, yoon bu ko deful nak suñu yoon kon mané ne wax né amatul lu muy tekki Lat Diop moom moo euh, wax affaire Adji Sarr Ousmane Sonko batay tey Vox Populi def ci ñëwaat ñëwaat na ci ci euh, suñu yoon manam justice bi jamono ji dafa tambalé yëngu ndax nak dina déglu borom Sweet Beauté ki nga xamné mom mom moom salon bobé nga xamné mo waral coow li doyen des juges mom moy def lu nu mel tension sur le marché du gaz euh, arrêt technique à la SAR ak euh, yenn ci ay perturbations yi nga xam ne am na ci circuit de euh, distribution bi ndax nag am na ci ñu nga xam ne nii gis gaz jamono ji tëne ne lool nee mi ngi tàmbalee manqué en tout cas ñoom ci boppam yéenekaay bi ñëw na ci di euh, vox populi législative situation nationale tendue wàllu dénonce le maintien arbitraire du euh, parrainage nee nañ président Macky Sall nag fi mu teg ab tànkam ne mhm. parrainage bi faw mu am mhm. tegu ko fenn na ko mhm. teggi na mu teggee concom ci yenn dossiers yi na teggi tànkam euh, ci parrainage bi te dindi ko fi ndax du filtre bi nga xam ne moo baax si ñëpp ndax nee nañu filtre boppam rek la pour mën a am ay candidat boppam yu mu mën a lool loolu opposition bi bañ moo tax waa wàllu Sénégal nee nañ ko xeexu ñu xuloo ñu ñu lu ñu bëgg rek mooy ñu toog waxtaane ko donc ñu ngi lay oo président Macky Sall nga woo opposition bi ñu toog waxtaan out solution yéen kaay bi ñëw na fii trafic passeport diplomatique député Salé Biaye ak nag ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddandoo ci dossier bi euh, jox nañu leen rendez-vous juróom-ñaari fan euh, ci weeru euh, avril Euh, ñu dem euh, fii nga xam ne rek mooy bët saalumu réew mi ak nag euh, MFDC jamono ji l'armée Sénégal daf koo song mhm. Yacine yaa ngi de daf koo song jamono ji si anam bu doy waar ah et puis ngir nag mën a tas base yu rebelles yi ngir jàmm dellu si ba faw parce que bii l'armée bi fës kéene ñu si dellu ginnaaw dem nañ si ba mu sës donc offensive boobu day jàppale ne kon nag fu mu nekk nii dal nañu si kaw saalif Sadio bu ñu bëri ñu ngi laaj ani Salif Sadio fu mu nekk nii nord Sindia Sindian noonu la ah, du Sindia

ci li nga xam ne moom mooy bopp askan wi société civile mais également ku ci politique bi analyse politique bi di Momar Diong nee na jamono jii de euh, lii buñ ko teggul ay contentieux pré-électoral euh, dana dana ci am. donc euh, man nañ dem jublu émission euh, buñ paré paree élection yi poste électoral wala pré électoral wala lu mu ci manti euh, euh ay ciow man na ci am ci la nga xam ne mooy mu jëntaloo ci élection yi ak nak législative yeex parrainage bi Ziguinchor ak nak offensive bi nga xam suñu takkadeer yi militaire yi ñu ngi koy def sa nord Sindian l'armée bi malheureusement am nañ kenn ku ci ñak bakkanam Salif Sadio fu mu nekk ni ma ne sax ne sës nañ ko ci miiru wis bi mhm. fu mu nekk gaddu yóbbu mom mo ci dess bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom mooy yéenekaay bi di Sud Quotidien malheureusement ñu koy jaale nag seen euh, njabootam. Euh, mm-hmm. takk der bi nga xam ne moom moo si faatu. Mm-hmm. waaye nag seen bàkk la. on nous tue mais on ne nous déshonore pas donc ñoom bu ñu demee bay engagé wu xam nañ ne mën nañ seen bakkan mën na ci rot waaye du tere kenn du leen soofantal kenn du leen ñàkkal fayda ndax nag dañu koy def ngir askanu Sénégal bi ñu war a aar voilà ñu ko ci euh, jaale ay mbokkam. Mm-hmm. buñ sañoon lépp dina am te kenn du si ñàkk bakkanam suuf su aar. Source A dafa ñëw ci exigence ci coalition Wallu Sénégal jëm ci waxtaan bi ñu bëgg ñu def ko wax nag euh, njiitu réew mi président Macky ku jëkk politique gi jëm ci euh, parrainage euh, maintenant après ñu dem ci Odia boo ko gis-gis mi ngi soldé ay comptam ci li nga xam ne moo euh, jëm ci nee nañu ñaari gox yi nga xam ne ñoom ñoo ko am ñu foqati ko seen loxo xam naa konta euh, euh, sànq ñu ngi koy wax te tey sa Pikine moom doxum ñaxtu bi dana am diggante kujje politique gi. Mhm. ak nag nguur gi. ñi ragal nañ ne mën na mën na mën na andi coow. yàlla baax nañ ko def si jàmm mhm. ku nekk dox doxam et puis la nga ca bëgg nga xool nga noo koy jëmmaalee. Oja dafa ñëw ci benn classe classe boo xam ne nii de dafay représenter forum mondial de l'eau. Mhm. benn table moo fi am.